kii ko ba lan ba juutal dañ koy laal eh, dañ koy laal laal la wax ba laal kese la ñuy topp ñun ba laal kese la ñuy dañ koy laal maa gën a bég si am leen jàmm loolu moo doon góor am lii. dëgg la waaw jigéen di ëmb. loolu jàng laal la am teuse. ay bu laal barki sëñ bi waaw mais bu laal ñoom ñoo ay bisimilah. la ce que ñu waaw ñun yàlla moo def na wóolu Pokola am ko doyloo ko wóolu sëñ hmm. na trop ku ne am nga mbër. mais ñun Pokola moo ñu doy. mais am si Pokola man moo nekk yàlla nekk Baye du ko dund mu da koy bokk ak ñun. wóor na Serigne Touba cant gi. Hmm. da koy dund ak ñun ñoo ñu gëndoo ba guddi. Hmm. waaw loolu waral ñu koy fu sori waaw parce que ñun suñu na fii hmm. ama bala daa def fii pigin lu ne ñun ñu dañ ko bëgg a weesu hmm. dund leneen ndax Pokola mooñ si day Boko ఎగ్జా ఎగ్జా బొమ్మ కొడుతున్నారు సార్ Saloum